transport Sénégal moom euh, fi ñu si toll nii ay jafe-jafe kase la. jafe-jafe transport yi bari na euh, bokk na si ñàkk organisation bi euh, bokk na ci manqué sensibilisation bi bokk na ci ci ci ñàkk xam xam kii code de la route bi ñàkk appliqué aussi ci kaw tali bi bokk na ci benn bis topp état bi moo war a jël ay responsabilité avant ay sanctions mu fexe organiser transport ba pare. léegi nag loolu noonu loolu noonu moo moom la war a njëkk a def muy benn non seulement ñu fexe ba sensibilisation suñ koy def ñu xam kii dugg ci transport aussi xam lan mooy transport kii ne ci chauffeur bi tamit ñu fexe ba mu xam lan mooy tali bi parce que tali bi sax du ay ñin naan ay chauffeur donc ñoo ci ne képp ku yor oto di dawal rek euh, ci nga bokk ñu fexe ba képp ku yëg ci tali bi xam lan nga warloog tali ba keroog nga koy wàcc xëy na fii Sénégal nag euh, loolu xaw na fee manqué problème état bi mooy. suy tënk euh, sa euh, suy tënk problème yi du jël acteur yi nga xam ne ñoo ci am xam-xam pour ñu toog waxtaan ak ñoom xam ni que lii mooy problème bi lii mooy solution bi pour affaire bi mun a indi ay saafara daal. du ay surcharge mooy indi accident yi loolu yaakaar naa état bi ne ni non danoo soxla xaalis rek mais du loolu mooy indi accident parce que euh, accident li koy indi ak ay surcharge danoo soree accident oto bu màgget xëy na da ci mais rare na ci lim ciy participer accident ci comportement nit ki la. ak comportement tali bi ak comportement ak oto bi ni muy mel ci ñett yooyu ñooy indi accident léegi nag pour sar sur sar assi nan ni dañuy aar seen tali rek mais loolu moom bokkut ak jotewut ak dara ci lu indi accident mais nag ñëpp a ngi jooy sañoon tamit état bi wàññi euh, tonne bi du du deux mille ay deux cent mille la alamaan bi ay cent mille am ñoo xam sax dañ leen di fay lu ay neuf xam ne ci koo xam ni transport xam ne organiser wuñu ko loolu ay jafe la daal suñu sañoon mu dimbali aussi yi ci côté boobu. Euh, yi di gën a jooy. bokk na ci montage yu bari parce que montage yi aussi fi ñuy euh, dangay gis benn montage boo xam ni fi muy taxaw di arrêté camion yi baaxul mun la taxawal fee te camion bu sare ba diis du wàcc parce que tali Sénégal yi da ngay gis ne léeg soo génnee Dakar tali dañuy kawe camion munul sare ba diis bëgg a wàcc mu taxaw ci kaw tali bi accident su amee da ngay gis ni euh, euh, takk der ba taxawoon nga taxaw fa mu dégager responsabilité muy benn su leen mënee dimbali kon ñu wàññi leen takk der yi suñuy génn. contrôle bi dina ci baax beneen bi stop suñu mënoon état bi su leen mënoon dimbali ba nga xamante ne danañ defal ay centre de formation ci frontières yi euh, ba nga xam ne chauffeur bi su ñëwee ci frontière bi bala muy dem état bi jël responsabilité am foofu ñëw kat euh, sensibiliser chauffeur bi fekk ko foofu wax ko vitesse ak long voyage lan la ci code bi wax soo defee li soo defee li soo defee defee foofu la liggéey bi di gën a yombee que état bi ñu toog fii Dakar rek tënk ko ci hôtel yi wax seeni français wala wax ko ci anglais aussi amul doo yegg fa war yegg. muy deux léegi beneen jafe-jafe bi ñu am mooy pont bascule yi métti na ci transporteur yi parce que liggéey bi su méttee ci transporteur yi day wàcc ci chauffeur yi parce que chauffeur bi daw rek la am mais ki koy fay su dee ba mënu ko fay kon problème day am te transport dafa bokk ci lii tax ndaw ñi di xëy parce que soo jëlee Sénégal 16 millions yi ñu ëpp ci liggéeykat yi ay ci secteur transport bi lañ nekk fexe tam ba bi. waa inspecteur du travail di dem ci entreprise di def contrôle pour ñu defal liggéeykat yi ay conditions yu baax di leen defal ay contrat de travail su ko defee seen xel di dal parce que chauffeur yi nga gis ñu accident yëpp seen xel moo daru li ma ci gis comme solution rek mooy ñu fexe moom président de la république mu fexe woo acteur yi nga xam ñoo séq transport bi parce que waxtaan actuellement foofu lañ tool mu woo ñi nga xam ñoo ko séq te am ci xam lool mu toog ak ñoom waxtaan na ñoom ak ministre bi nga xam ne mooy ministre du transport ñu xool lan mooy jafe-jafe yi ñoom lan lañ gis mooy jafe-jafe yi ñun syndicat yi aussi tamit wax lan mooy jafe-jafe yi fexe ba secteur bu nekk ñu convoqué ay responsable chauffeur ñëw toog wax lan mooy jafe-jafe yi su yàggee yaakaar naa suñu boolee jafe-jafe yooyu dinañ am solution.